mais bu es est-ce que dañ naan est-ce que du ñun loolu lañ bëgg xam wala di wax ba Adamo di la enregistré wala lu ci mën am en tout cas en tout cas yoon xam ci dara dal la fa ko def sa bopp parce que moo géet boo fa demee nit ñu bëri ñoo fay lu mu sama gars man Mister Shake depuis Brooklyn New York tey nag dama ñëw defal leen benn vidéo ci Awa Balde ak Mo Gates Awa Balde la gis mu génn mu mel ne ku aalu Awa Balde di wax naan bàyyi leen di wax ne nit kii sama nit la ba pare mu ne fii ngay gis ni ñi ngay gis borom xaalis yi boroom ñi nga xam ne dañuy maye gauche à droite di def social ñoo ñoo dàq sàcc ñoo jàq mais lu ne mu wax ko mais man site bi gis ñu bind dañ ne mo lay waxal dañ ci ñu bind en colère lance des pics à Mo point d'interrogation et détruit certains hommes d'affaires nous instant bi ko Sénégal parce que mi ngi nek ci di wax di ah, xarit ci nguur gi bu boobaa lu la neex lu la neex lañ leen di def te du mujj fàkk kon moom su dee moo géet lay waxal lan la ko moo géet def est-ce que dafa dafa am luñ ko def te dañu jël xaalisam wala dañ ko triyande wala lan la am na aussi fu muy waxee di wax ne dañuy ñëw naan sama rakk nga sama lii nga sama laa nga te duñ la defal dara te moom nee na du ñaan kon ñun lu ñu laaj mooy est-ce que moom bu dee moo Gates lay waxal dafa bëgg wax ne Mo Gates musu ko defal dara loolu bu ko waxee dina dinañu jaaxal ndax moom fii la toog mu génn mu ne Mo Gates vraiment day def social am na sax pouponnière boo xam ne Mo Gates mu ngi fay joxe xaalis ñaari pouponnière fii Sénégal kon ba pare mu génnaat fii dem ci Adamo booy bi Adamo waxee ne dafay day génne yenn secret yi ci moo gét di wax naan moo gét mës nañ ko tëj ci affaire crédit card wala lii wala laa xam nga moom moo fa génnoon di wax na non non Babs Diaspora lii Babs Diaspora laa moo géet yëkkati woon na trois mille cinq cent dollars xaw ma daal di daal di ko yónnee xaw ma si xaw ma sax ñaatu dollars la wax ay million daal yu bëri daal di fayal Babs Diaspora ay employé ndax si Diaspora ñëpp xam nañ dafa am benn site kon Awa Baldé buy wax ne borom xaalis yi ay dóorkat lañu te bu xam nañ ñi fi ña nga xarañ loo génnoon na fi tamit mu ne moo géeg euh, la yor. mais lii bu yàggee est-ce que dañ naan est-ce que du moo géet moo ñun loolu lañ bëgg xam wala wala du ne dafa dem ba parce que man mi génn naa fi vidéo ma ne moo bu yoboo mu yeewu bu yoboo mu yeewu parce que di woo ay sénégalais di woo ay di ay chanteur di di jox ñi ay millions ah ndax gis nga euh, euh, euh, Aïda Samb fi may millions lan la wax après dafa ñëw Sénégal toog naan man kenn kiiw ma euh, foruma sëgguma du for man man du fi nekk kenn du ma ñàkkal fay de genre wax yooyu xam nga ci laa génn man mi génn naa vidéo ma ne moo gétt bu mu def attention bu dee xaalis bi mu yor na dem Sénégal mu tabax fa benn R plus cinq wala moo xam lu muy def mu tijji fa dara moo gën Sénégalais yi nga xam ne dañuy topp ah, di la xalamal waaye boo ñàkkee ñu génn di dal sa kaw bu dee nag Awa Baldé moo géet lay waxal lii moom rafetul xam lu tax mu ne rafetul parce que moom ci boppam dafa ne moom ci boppam dafa ne moom buy ànd ak nit bu demee ba ci biir gis ne nit ki dafa bon sax moom du génn di génn ay mbóot di wax nit ki def na li nekk def laa waaye li muy def nii génn mbóot la li muy def nii génn mbóot la parce que déjà même bu dul moo nit ñi mën nañ yaakaar ne moo la wala képp koo mënti àndal mu nekk homme d'affaires xam nga dañ naan li ngay def moom la kon Awa Baldé moom ci boppam moo war a xoolaat boppam yow yaa fi génn di dem ci Wally Seck di di di di baatare ay cinq cent mille xaw ma un million baatare bu yàgg te boobu moo géet la doon way kon tey bu fekkee ne li ñu bindal fii dëgg la ne yow moo géet ngay dal Awa Baldé yow sa bopp yaa war a xoolaat sa bopp lii vidéo bi war a ko def parce que ñu bëri ñu ngi naan xaw ma Allemagne nga nekk xaw ma xaw ma foo nekk am fa sa salon xaw ma yow yaa war toog nga concentré sa bopp comprendre nga bayyi di génn di def gaaruwaale yi wala di dem ci adamu di wax ba adamu di la enregistrer wala du ci mënti am en tout cas en tout cas moo génn moo génn <laughs> xam nga xam nga ku dem ci mo génn dara dal la fa ya ko def sa bop parce que mo génn boo fa demé nit ñu bari ñoo fay tass mo génn du mu bax bax bax bax bax mënul contrôler ñëpp té fofu dafa am ay clan da ngay toog dégg euh, euh, Babs Diaspora fii la toogoon di wax ñu naan Babs moo wax lii wala Babs wax laa te yàlla xam na ne boo demee Babs waxul dara comprendre affaire Sankara mbay bi ak Ndiolé Tall bi ñu ñu ngi ci wax di ci tudd ay nit nga toogaat dégg beneen jigéen bu toog ne Tange dafa sàcc ay oram est may dégg nga dégg am a neex am na benn mbër bu mu fi doon xeexal chaque jour Babs Diaspora dem ba ci boppam mu nga xam ne moom bras droit moo géej la woon daan filmé moo géej lu ne mu koy defal moo géej moo géej xëy benn jour daal ko yóbbu New York faylu ko sax hôtel Babs si Babs Diattara mooy nettali li mu yaakaar ne moo géej dina ko yónnee xaalis hôtel yónnee wuñ ko xaalis xaalis hôtel ñaaxarañ loo amoon fi problème ak moo géej di wax ne xaalisu pexe la yor après ñu jubawaat kon foofu ku fa dem Sankara mbay Ndiolé Tall Awa Balde Euh, jigéen boobu def naa Amina la tudd bi ñu wax ne dañu sàcc oram Tange ku dem ci moo géet ah, baax baax mënul contrôler ñëpp te foofu dafa am ay clan da ngay toog dégg euh, euh, Babs Diaspora fii la toogoon di wax ñu naan Babs moo wax lii wala Babs wax laa te yàlla xam na ne boo demee Babs waxul dara comprendre affaire Sankara mbay bi ak Ndiolé Tall bi ñu ñu ngi ci wax di ci tudd ay nit nga toogaat dégg beneen jigéen bu toog ne. Tange façade à ay oram est-ce may deg nga deg ama neex am benn bu fi chaque jour Babs dem ba ci bras droit mourir film moo Le lu ne mu koy defal mo très bien jour D'adiko. Yobu New York faylu ko sax hôtel Babs Babs Diaspora mooy nettali dino mu yaakaar dina ko hotel hôtel ko hôtel amoon fi problème ak moo géej di wax ne xaalis su pexe la yor après ñu jubawaat kon foofu ku fa dem Sankara Mbaye Ndiolé Tall Awa Baldé euh, jigéen boobu def naa Amina la tudd di ñu wax ne lu la fa dal lu la fa dal gars yi dañu waxante dëgg yaa ko sa bopp ndax xaalis fépp fu mu nekk xaalis boo xam ne dañ la koy may nii rek xam nga te yow demuloo pour liggéey lu la fa dal yaa def sa bopp man moo géet yàgg naa ko défendre di wax ne moo géet ah bu dee sénégalais la ñu gis fa DJ Boubs gis fa Viviane bu ñu fàtte Viviane bu ñu fàtte Viviane ndax Viviane dem na fa moom ci boppam ñu ne dañ ko faa toroxal Viviane humilier coow li ñu court comprendre donc affaire bi mu ngi bëgg doon benn benn benn euh, feuilleton boo xam ne léegi daal moo gën ku fay dem rek lu la fa dal yaa fa def yaa yaa yaa ko def sa bopp boo fa demee ñu taqal la ci sàcc wala ñu taqal la ci njaaloo wala ñu taqal la ci lu mu doon yaa ko def sa bopp man de man de moo gën ba mu koy doog a dégg li taxoon sax ma sawar ci ay mbiram dama noon waa jii kat bu dee Viviane mu ngi fay dem DJ Boubs mu ngi fay dem Saneex mu ngi fay dem ak personnalité yëpp ah kii kat xaalisam xam naa fu mu ko jëlee war naa fu set la war a doon tey dañoo gis ne lépp ci sénégalais yi la koy def xaalisam yëpp ci sénégal la koy def ma ne ah kii de kon xëy na neex neex naa jàppale waaye de bis yi ñu toll moom bis yi ñu toll moom coow li bëri na bëri na boo xam ne bëri bëri boo xam ne man mii moo géet xam naa ne sax intéressé wu ma ko man moom bu intéressé wu ma mais man pour ma dem ci di dinaa hésité trop man mës na ma invité benn jour heureusement damaa dem ci restaurant lekk naa fa filmé naa li may filmé dama bëgg nga defal ma benn interview mu ne ma ok après dinaa la defal interview mais interview mujjul am ci laa ñibbi ma toog sama kër ba ma contacté contacté xam ne ñii mënuma liggéey ak ñoom ma arrêté moo géet nag nee nañ mu ngi ci làmb bi ñun loolu lañ koy digal na jël xaalisam mu bàyyi xaalis bi muy jël di ko pasar pasare di ko may nii ñii te sénégalais boo may boo demee ba amutoo dañ lay ñaawal xam nga te bu boobaa moo ngi doo jar dara yaa ngi ci làmb bi loolu ñu ngi koy encouragé au au moins nga investir sa xaalis gëj nañu gis ay mbër di dem foofu ñu nekk ci hôtel yi di fa xeex ñun loolu la ñuy digal moo ngi li muy mayee maye na ko ba pare li mu yor as tuut bëri na bëriwul moom moo xam mais kenn mënu weddi ne yëkkati na ay millions may ko ci Sénégal yi millions yi ko dese ñun luñ koy luñ koy digal dafa mel ne sax moom lay def parce que man ba ma waxee loolu ba léegi gis naa ne nit ñi dematuñu ci moom na toog këram xaalis bi mu yor mu gérer ko moom ak njabootam Awa Baldé nag yii na ko éviter yii ne ko éviter parce que dara jaru fi dara gëmal sa bopp euh, nga xuus jàll moo gën ngay génn di wax xëy na sax waxoo moo géet mais boo waxee rek dañ naan moo géet ngay waxal yi like leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu ba beneen merci. jaajëf like leen partagé leen abonné leen Mister Shake ngeen di am foofu jaajëf jaajëf xanaa ma loolu nag man waxoon naa leen ne Sonko man maay Mister Shake man maay Ndiago Sonko man maay Mister Shake man maay Ndiago Sonko man aw maa lu may bëgg man aw maa lu may namal man aw maa ku may war a gis naa la yaa may daan naaw